الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي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 الحمد لله ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobbu Mame bu Bousso ngi leen di gunge lu ëpp ñaar fukki at ci seeni biir kër féete ak kilomètre ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru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 te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. alhamdulilah alladi agnaani wa aaz. audu billahi min alshaytaani arrajim. bismillahi arrahmani arrahim. laka alhamdu ya rabbana kama yanbagi li jalaali wajhik wa azimi sultaanik. allahuma salli wa sallim ala nabiyi almujtaba muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant buur yàlla subhaanahu wa taala di ko bakk di ko kañ di julli ci ki mu tànnal boppam teg ko suñu kanam ne ko na jiitu ñu topp ci nañu roy suñ moom ñun ñëpp muy Seydina Muhammad di suñu sang ak ay waa këram ak mboolem ñi wéy ci yoonam ba keroog ñuy dajeeg borom bi subhaanahu wa taala keroogoo yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy teral moom jalla jalaalu ñi ànd ak yéen ci suñu émission la globalité de l'islam shumuliyatul islam di delluwaat ci waxtaane weeru koor koor nag mu nekk loo xam ni yàllaa ko farataal suñu kaw comme ni ko farataalee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu mu ñëwee ci alquran ci suratul baqara kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun indi leen leen li nga xam ne moom mooy njàngum alquran taxawaayu salafu saalih mag ñu sell ñi ñu jiitu ci lislaam nañ doon dundek alquraanul karim waaye tamit nañ doon taxawee weeru koor ci ay naafila <coughs> pardon ci ay naafila ci ay jaamu yàlla mu nekk lu yéeme loolu nag bànneex yi ci nekk ak coono yi ci nekk bànneex bi mooy coonoy bànneex coono la waaye bu ànd ak bànneex parce que yaa ngi sonn di julli di julli di julli wala di jàng alquran coono la ci biti waaye sa xol am na lu muy yëg ci bànneex looloo tax mu nekk coone bànneex euh, tey balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy koor ci boppam li ci nekk ci ay xéewal ak li ci borom bi subhaanahu wa taala bi dañuy ñëw ci li ñuy wax itaamu taam fi ramadan wax nañ ci julli maanaam naafilay wax nañ ci njàng alquranul karim léegi tey ñu bëgg a wax ci kiy joxe ñam ci weeru koor kiy joxe ñam ci mboolem jamono waaye surtout ci weeru koor allahu akbar surtout ci weeru koor sahabatul kiram ku mel ni qataada suma ma jumule day wax ni bu weeru koor daan ñëw ñetti yi mooy nekk suñu occupation saxaaba yi loolu lañ doon def yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jàng alquran naafila joxe ñam itaamu taam allahu akbar joxe ñam joxe ñam li tax mu am solo mooy mbokk yi nañu delluwaat ci alquranul karim ëllëg dina am ñoo xam ne moom safara mooy seen kër waaw safara mooy seen kër yal nañ yàlla musal ci safara waaye dina am ñu bari ñu fa dugg yàlla maanaa bi ngi ñaan yàlla daal safara doon kumpa si ñun buñ ko gis waaw waaw su ma nee buñ ko gis mooy buñ fa jaar buñ ko buñ fa dugg mukk waaw yàlla nañ ump waaye am na ñoo xam ne dañ fay dugg suñ fa duggee nag dañ leen di laaj parce que yenent bi am na lu mu waxoon wax nañ ko ci ab émission bu jàll mooy ñëppay dugg aljan dul ku bañ ku bañ nag yow yaa yóbbu sa bopp foofu muy safar léegi nag ñi dugg safara dinañ yéem ñi fa dugg lan moo tax ñu dugg fi c'est-à-dire saa nga gis nit mu dugg ci loo xam danga ngeen ne waaye yow loo doon yow lan moo la dal lu tax nga dugg ci lii lan moo la duggal ci lii léegi nag dañuy laaj waa safara ne la maa salakakum fii saqar yéen lan moo leen dugal ci safara loo doon sàggan bu dugg ci safara su tàng si lan moo xew ñi ngi doon wax ci émission yi jàll US jàngum alquran julli naafila waa safara li ñuy njëkk reconnaître maanaam sabab yi ñuy njëkk wax ne moo tax ñu dugg safara bokk na ci mooy xoolu lam nakku minal musallin waaw xoolu ñu daal wax ne ñun bokkuñu woon ci jullikat yi ñun daanuñu julli farata asam ak naafila waaw ci boppam dañ koo sàggane woon faale wuñ ko woon asam ak naan dañuy def ay naafila ak ay taraawih ay xiyaamu layl ak dañuy dem jàkka ja dañuy julli yooyu fooyuñ ko sax yooyu bokkul woon suñu programme waaw bokkul woon suñu programme alquran la suratul muddassir mooy wax ni boo demee ci suratul xaq tam nga fekk fa la même chose nga dem ci suratul maun tamit li ma nar a wax mu ngi fa kon qaalu lam naku min al musalli ñun daan bokkuñu woon ci jullikat yi daanuñu julli waaw faale wuñu woon julli bokkuloon suñu programme ñaareel bi ñuy reconnaître ne sabab booboo tax ñu dugg safara mbokk yi mooy walam naku nut'imul miskin allahu akbar walam naku nut'imul daanu ñu jox miskin yi ñam maanaam daanu ñu joxe ñam ci gàttal ñam moom mukk koo xam ne xalaatul àddinam mu togg ñam ba may ci ñit walla mu togg ñam ba invité ñit wala mu togg ñam mu bokk ak ay ñit wala mu fexe ba jël dara jox ko ay ñit pour ñu dundee ko dépense daanul joxe dépense waaw am na koo xam ne waxuma la jox dépense keneen waaye njabootam sax nee na leen jox dépense am na ñoo xam ne dañuy xëy na tir génn kër gi dégager seen responsabilité ki ko amul amul waaye dafa am ñoo xam ne du question ñàkk am waaye dañoo dég dañoo dañoo ñemewul responsabilité parce que joxe dépense yombul waaw joxe dépense yombul surtout chaque jour bés bu ne rek li ndeysaan Golbert Diagne euh, suñu paa bu baax boobu ndar-ndar ma doon jouer théâtre yu amoon solo lool yal na ko yàlla yërëm yokk ko ay xéewal ci barke alquran ak weeru koor bi seetaan naa benn théâtre am ngeen baal ma ba soxna si laajee dépense mu ne ko waa xanaa dépense du retraité <laughs> mu xanaa dépense du retraité bés bu ne dépense dépense parce que yombul léegi am na ñoo xam ne ñoom nee nañ sax jël dépense jox ko seen njaboot kon walam naku nutimul miskin bàyyi ko xel yow mbokk jullit kon miskin fii mun nañ ko fiiree ki soxla lu mu lekk ku soxla lu mu dundee nga xam ne loolu c'est des yoo xam ne ay mbir la yoo xam ne mënta ñàkk ci dund ñit ki nit ki faw mu lekk parce que su lekkulee dafay faatu kon bokk na ci li ñuy wax ne moo tax ñu dugg safara mooy ñun daanuñu joxe ñam laa kon yow mbokku jullit ki joxe ñam kon ndeke dafay bokk ci li lay dugal aljanna li muy tekki mooy buñ doon joxe ñam dinañ dugg aljanna duñ dugg safara kon ñàkk joxe ñam moo tax ñu dugg safara kon buñ doon joxe ñam aljanna la ñuy dugg waaw boo am na ci beneen xadis yonent bi sallallahu muy wax mu ne ay naas yéen nit ñi na ngeen tasaaree jàmm maanaam afsu salaama waaw wa sollu bil layl wa at'imu taama tadxulu jannata rabbikum waaw na ngeen tasaare jàmm koo leen dajal wan leen ko jàmm yéene leen ko jàmm ne leen ko asalaamualeykum waaye itam julli guddi fekk nit ñi ñi ngi nelaw mooy li doon wax ci émission yi wees waaye tamit na ngeen joxe ñam boo leen ko defee tadxulu jannata rabbikum ngeen dugg seen aljanna yi boroom allahu akbar kon weeru koor wi yow sa mbokk njullit joxel ndogu del joxe ndogu moo tax sénégalais yàlla da leen may sénégalais ku yàlla may la man xaw ma suñu mag ñi daal euh, ay yan xeetu mag lañ mais mag ñi yéeme ngi nii sénégalais yëpp dañ leen war a ñaanal maanaam ki xalaat ba indi suukaru koor suukaru koor lu yéeme ngi nii parce que suukaru koor nga jël cinquante mille jox ko nit sa bokk jullit wala ab oustaz wala imam wala euh, ab sëriñu daara wala nga jox ko benn borom kër wala nga jox ko ku la jege sa famille wala koo xam wala sa dëkkandoo nga ekkati nga jox ko ko nga ne ko lii suukaru koor la te kiwul ne cinquante mille yëpp da koy jënd suukar teg ko këram déedéet waaw da nga ko dimbali si weeru koor bi nga xam ne moom dootul xalaat fan lay jëlee njaboot maanaam fu muy jëlee ndogu bi muy yóbbul njabootam ci kër gi wala naka lay dundee weeru koor bi ci ay ñam yu mu war a jënd ñoom ñu indi suukaru koor nga xam ne dafa yombal mbir mi allahu akbar loolu lu baax la lu am solo ñi noonu suñu déggee sens bi ak suñ ko yóbbee ci sens boo xam ne bu rafet la du forcé nag waaye lu baax la lu loo xam ne cest à lum lay mën a may ci yiw ak aljanna buntu aljanna yépp ay ubbeeku sa kanam loolu soo koy def waaw ñi nga xam ne ñoom ñi ngi koy def année bu ne nañ ko nañ nañ nañ ci sax bu baax ndax sabab la ci dugg aljanna suñu borom moo ko wax ti moom moo ko wax ñi nga xam ne nag daanuñu ko def nag nañu ko def nag nañu ko def ndax aljanna bu taxaw a ngi ni aussi surtout si weeru koor maanaa joxe ñam surtout ci weeru koor joxe ñam moom jamono yépp la baax mbokk yi joxe ñam moo xam lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la bu mu si mun a doon soo ko defalee même koo xamante ne waxuma la doomu aadama waxuma la jullit wala ku dul jullit nga defal ko sax anim animaux yi ab jur waaw ab xayawaan yàlla fay la ci tiyaaba aljana sax xaj na ci foofu la ñuy tëjee ci émission bi mooy dafa am benn soxna am na ñi naan soxna la ci xadis yu ñëw moo neen ci yenn xadiis yi ñu ne rajulun ab góor la ab waay la bu dee soxna si ñi ngi wax ne soxna su doon jaay boppam la ngeen baal ma ci kàddu yi mooy ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp waaw yaakaar naa ñëpp comprendre nañ bëgguma dugg ci détails yi ku jigéen ki loolu moo nekkoon ci liggéeyam moom moo nekkoon liggéeyam waaye kooku aljana la dem dafa dugg aljana te yàlla toppewu ko dara lan moo ko sabab mooy soxna soosu dafa gis ab muus wala ab xaj ab xaj boo xam dafa mar mu ut ndox jox ko mu naan damay gàttal xadis bi rek xissa bi mu jox ko mu naan ndax yërëm bi mu yërëm xaj bi bi mu ko defee yenent bi ne ñu jéggal ko ngoolem xeetu baakaaram dugal ko aljanna waa ki nga xam ne ab xaj moom la defal lii yàlla fay ko ci aljanna waa ku defal doomu aadama looy am kon li a tax joxe ñam dafa am solo gis nga ara ayta allazi ñun ñëpp mokkal nañu ko suratul maun bismillahi rrahmani rrahim araayta alladi yukadibu biddin fadalika alladi yaduu lyatim wala yaxuddu ala taami almiskin fawaylun lilmusallin alladina hum an salatihim saahuun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون xoolal saar bi day gën a firndeel liñ doon wax léegi kon yàlla alak na wala rëbb ñi nga xam ne ñoom du ñu joxe ñam te du ñu encouragé kenn mu joxe ñam incha allah ci loolu la ñuy ñëw ci beneen émission bi nga xam ne moom la ñuy ñëw incha allah ci ëllëgee di ñaan borom subhanahu wa taala may ñu dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci bu jën bi toggee gog sa sooja resto rosi bi def si soos soo ko mosee dootoo ko bàyyi alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani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

الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان